alors mi ngi noonu Coumba Dia euh, di présentatrice euh, Senene waaw seen moom moo nekk nii gis ngeen tey la koy euh, tey la ñu ko may borom kër madame Niang moom moo nekk nii toute belle toute ravissante moom la ñuy gis <laughs> instant dafa étonné wu ni mu gisee presse bi nii xam ñun dañoo donc voilà ñu koy souhaité di ko ñaanal heureusement félicitations madame félicitations. merci beaucoup madame Niang. madame Niang waaw ah, wala ñaareel. lama lama la nga nëb. loolu sama vie la moom loolu dama ko. lama lama la nga nëb nga nëb affaire yi. waaw mais noonu. Ah, lan lan ngay wax monsieur. ah kenn wax naa ko. jeexal. bàyyi ba dugg ah. bàyyi ba dugg ah. lu mu def lu ko yaay Nani Fatou Boye. nee na sëtam Birame Mbaye Ndoye. sëtam ñaaña Mbaye Ndiango. Fassane ñaaña. Fassane ñaaña. sëtum Ndeye Baye Gueye. sëtam Ndeye Baye Gueye. Badara Gueye. ak Alioune Badara Gueye. Ah, nee na Kumba Dia nii rek ngay mën a mel. doom ji ndeyam liggéey baayam ñaanal ko ku ko yore fa ndëkk bi lay weeree. maam ku jege sa yaay liggéey yi. mokkal téye leen soutenir leen téye leen seen bopp koo romb tant tant tant mooy ñu gën a sànni di la ko yal na la yàlla defal jàmm tey tey bi yàlla baax na yàlla baax na yàlla ngeen àndal tegal ngeen ko ñu topp diggu tool ba ko dayam dàgg nga ne neex yaay maa la man kenn du ko wax ku ne xam nga kalamal bi daf ko doon nangu ñu dégg ko dëpp la ak sama ko mu dem leen Namu. Namu. nga maa déglu. donc kii nañ tudd gars yi ah. maa ngi taxaw si kanamu gars yi. waaw d'accord. waaw da ngeen def ndànk nag damay topp mais dinañ ko jël interview ñoo koy jëlee mais ñu jël PC ba pare. waaw kon jël leen ba pare ma boo mboq. ko jël interview. non man damay dem damay yàq damay def plateau directement. mbokk internet yi ñu toog ak nag ki nga xam ne nag moom moo di la journaliste de tous les temps ki nga xam ne jooyloo na ku ne ah ku ne jooyloo na ko am nee naa la borom confidence te doo jooy ah kon ndekki nii nga wooyee ba <laughs> mais finalement félicitations kontaan nañu ci bis bi nga daal di dégg alxayri noo ko dund ah kontaan c' est normal. ku dégg alxayri ku ne nekk jigéen. Eh, kontaan awo yaay ñaareel wala awo yaay. nga yomb na de yaa géré d'accord euh, tey ci biir loolu tey bis bu mag bi comme ni ko waxee ku nekk ñaan na ko euh, ci dundam tey yàlla may la ko ñu gis euh, li nga xam ne moom moo di kàddu yu rafet yi sa famille yëkkati sa sëru yaay yi sa yaay di def témoignage ci yow mu nekk témoignage yu triste sa relation sa yaay lan la. Hmm, sama relation sama yaay ah loolu <laughs> loolu beneen domaine la sama relation sama yaay relation yaay ak relation xarit ak mhm. indil indil indil doomu mhm. sama yaay mooy sama mhm. ci biir loolu ñu bari jooy nañu ndax nee nañu téye bi nga xam ne ne téye nga ko ki nga xam ne moo di sa waa waaw c'est normal mooy jur c'est normal nga téye ko loolu pour man sax wax bu yàqu la parce que yaay yaay la papa papa la mbokk mbokk la te àddina dina toll foo xamante ne soo gëstoo doo gis ku dul sa mbokk donc soo fonkoo lu bokk fonkoo wayjur fonkoo yaay fonkoo pap yaa ngi ci erreur lu naturel lu yoon la lu war am ñu fonk wayjuram ñu gis ne monsieur Niang moom it mu ngi woote xam nga ah, di wane li nga xam ne moom moo di mbégteem ci bis bi allo wax monsieur Niang je t'aime ah dégg nga je l'aime eh, la ko téléphone bi mu ay ca ah, monsieur Niang mooy woote a daal di wuyu <laughs> te yaa def noonu sa fulla noonu ba rek projet ko noonu ba ay ca c'est bon hmm? amoo question ah am naa question kay c'est par rapport ak liggéey bi nga nekk nekk ci média showbiz bi eh, dañuy faral di wax Sénégal mariage àndul eh, ak lu bari est-ce que par rapport ak sa carrière aussi ak euh, mariage bi voilà euh, euh, liggéey bi nga war a continuer ànd ak mariage bi est-ce que ça va être facile est-ce que préparé wu par rapport à ça. oui oui en plus moom. ci la ma fekk xam na lu ma fonk la lu ma bëgg la sama passion la te daf ma ciy jàppale bu baax. Mhm. d'accord ñu bëri dañ naan mariage célébrité comme niñ koy waxee dafay compliqué parce que ñoom euh, li ci bëri dañoo jàpp ne boo siiwee rek da ngay yëg succès nax la góoma lool parce que yaakaar naa bu weesoo tey yéen yéen may doo gis. Mhm. gis si dara du rek. Mhm. donc man góoma loolu succès du dara. li ñuy jàppee succès pour man du succès dafa mel ni nga xëy suba dem sa bureau liggéey ñi dem bureau ak journaliste yi dem toog télé si écran mhm. di liggéey seen liggéey c'est la même chose mhm. donc euh, man jàppewu ma ko un succès la so récemment nga jël prix meilleur euh, influenceur fii di fii di Sénégal ci lépp loo xamante ne média la mu nekk ci 2023 bi 2023 jeexagul aussi yàlla def sa euh, nga am ci jëkkër donc nga nekk sant yàlla la yàlla moo xam ay dogalam moo xam ni mu koy programmé hmm? parce que du deux mille vingt trois laa nekk ci média ñi mhm. ma xam dëgg xam nañ ne depuis deux mille onze je pratique le métier mhm. donc euh, lu yàlla di dogal la ci doomu aadama ak heure mu koy dogal loolu nga nekk def émission boo xam ne mën nañ ne bokk ci émission yi nga xam ne mën nañ leen nommer number one ci li nga xam ne moom moo di réew mi mais terewul a chaque fois day am polémique parce que boo waxee ñu ne maam Kumba day bëgg di jooyloo comme si que ne tu l'as fait exprès de faire pleurer les gens te du affaire bi euh, tout ne du teew ñi nataal exactement nan nga koy dundee non mais franchement du du lu may sàkku du may sàkku loo xamante la ñoom seeni émotion la ñuy génne te loolu nag kenn mënu koo tere mm-hmm. yi mooy mooy a profond rek mm-hmm. profond rek ci ñoom mm-hmm. donc c'est normal maanaam comme li sénégalais di wax naan daf ko def exprès pour jooy loolu du noonu man sama plateau bi gisuma ku fa toog ku def loo xam ne naturelul ci moom man boog aw ma sàn aw ma jëf-jëf boobu d'accord ay cher monsieur yegg si nag délégation dañ lay bàyyi nga dem nuyoo ji <laughs> maa ko fayee démb yow li ma la waxoon sànq.